asalaamaaleykum suñ téléspectateurs yi ñuy topp ci biir Equivox TV tey ñoo ngi am mbégte ak contentement de ki nga xamante ni moom mooy monsieur Abdou seen doon président mouvement bi nga xamante ni moom mooy mouvement Air Pur fii si Parcelles Assainies mu doon seen permanence ngeen di préparer élection locale yi tey ñu am jongante pour waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy seen mouvement bi ak contexte politique ak social bu nekk biir parcelle dañ lay bàyyi nga nuroog suñ téléspectateurs yi waaw euh, merci mon Euh, maa ngi nuyu vraiment les téléspectateurs de Equivox yëpp. merci beaucoup mais à travers ñoom aussi tamit képp koo xamante ne suba yaa ngi jot émission bi di ko. Mhm. di ko suivre. Mhm. maa ngi leen di nuyu di leen jox ñoom ñëpp seen yéeguwaay. jërëjëf man la Abdoul Wahab Sène. Mhm. comme vous avez euh, le coordonnateur du mouvement Air Pur. alliance pour l'initiative et le renouveau. jërëjëf suñu waxee Air si bon contexte la Air Pur juddoo. Voilà, Air Pur est né d'un constat. Mhm. En réalité, depuis notre enfance, mmh. ñu ngi nekk ci mouvement associatif yi. Mhm. mais ñu ngi nekk aussi tamit ci mouvement de développement mhm. et on est on est venu ici depuis 1983. et 83 à aujourd'hui nous sommes dans les instances vraiment des du du mouvement associatif. donc on a été avec beaucoup de leaders ici de beaucoup de personnalités ici. on a été vraiment ci ci ci ci scoutisme def nañ aussi nawetaan def nañ lu bëri. maintenant de 83 aujourd'hui on a constaté que vraiment. Euh, lu bëri loo xamante ne waroon nañ ko dépasser fi mu toll nii Parcelles Assainies. Euh, ba léegi dara changé wu donc on ñu waxtaan ñu ne vraiment kenn du ñu fekk fii au summit. du ñu defaral Parcelles Assainies. loolu mu fale ci contexte yooyu la air pur judo. muy une alliance boo xamante ne. day regrouper vraiment beaucoup de mouvements. Mhm. mais aussi tamit boo xam day liggéey ci initiative. Mhm. yu yu bees. mais aussi liggéey aussi tamit ci renouvellement euh, euh, euh, rénover un peu Parcelles Assainies parce que mhm. en réalité. parcelle dañ ko war a liggéeyaat daal. dañoo gis ne mouvement yu bëri dañuy judd après duñ sa duñ yàgg mu deewaat après ñu fàttewaat ko suñ xoolee contexte parcelle ñu gis ne fii la Amadou Ba nekk. ñu gis na Mbaye Ndiaye fi la nekk. Mhm. ñu gis seen maire bi aussi. Mhm. ban contexte lañ la wax le mouvement bi juddoo maire ngembu la. wala mhm. da ngeen gis ne dara doxul parcelle wala dafa am lu ñu fi war a def te defuñ ko wala population bi dañ leen fàtte wala lan moo xew. waaw en réalité comme ni nga ko waxee mënul nekk maire ngemb wax ah, parce que ñii nga tudd fii yëpp ce sont nos noo nos grands frères ñu jàng si ñoom lu bëree bëri ñu jaar ak si ñoom lu bëree bëri. mais li ma la vraiment Parcelles Assainies. ñoom Amadou Ba ñoom Mbaye ñoom ñëpp dañoo tële wala lan. waaw aujourd'hui c'est pas une question de télé ak yooyu noonu quoi da ngay gis ne quel que soit leadership bi nekk fii nii. Mhm. parce que asini ba léegi ndox mi fi mu doon taa mi ngi fay taa. Mhm. ba léegi nii bu tawee dañuy am problème pour jàll. Mhm. ba léegi nii boo duggee ci biir unité yi suuf si mi ngi fa nekk gàññ. ba léegi nii y a aucune infrastructure bu taxaw boo xam ne lii Parcelles Assainies yi. da nga naan leadership boobu ñoo ko fi def wala ñoom ñoo liggéey pour mu nekk fi. donc da ngay xam ne ça va boo ko comparé ak les autres communes. bien que xëy na ñoom aussi tamit am na lu leen lu leen lu ñu soxla wala lu leen dese wala yooyu. mais boo defee comparaison bu ndaw rek da nga xam ne euh, Medina euh, yàggul dara ak tey boo xool nga xam am changement. Mhm. nga xool aussi tamit euh, fu mel ne Mermoz nga xool liggéey bi nga xamante ne moom la fa Barthélemy Dias def bien que ñu ngi wax naan opposition la nekk mais vraiment da ngay gis ay changement da gis ay ay infrastructure yu bees. Mm-hmm. da gis gars yi di góorgóorlu ci assainissement bi et tout. Mm-hmm. mais parcelle vraiment y a ce problème ah dafa am problème boobu moo tax ma ne vraiment euh, nous avons constaté que kenn du ñu fekk fii du ñu ko defal. Mm-hmm. ñu jóg nag taxaw temm pour vraiment xeex dem dans les instances de décision. diriger ko. liggéey vraiment parce que euh, parcelle lañ dëkk. Euh, yàgg nañ fi. Mm-hmm. Euh, fi ñu war a aussi tamit ñu war a àndal ci ñu baax ànd nañook ñoom. Mm-hmm. te ñun suñuy loxo set na. Mm-hmm. te xam nañ ne aussi tamit. que fi ñu war a jaar pour Parcelles Assainies changer. xam nañ ko ah, ñu ñun waxtaan ci ñu àndandoo. pour fan nga mën a jaar pour Parcelles Assainies xar-xaram bi nga xamante ni wax nga fi ndox mi taal lépp taal fan nga mën a jaar ba nga xamante ni mooy changer loolu. non li ñu jàpp mooy que ne. Euh, leadership bi quand tu boo fekkee da nga def euh, diir bu xaw yàgg ci benn euh, kii nga occupé ko. Mhm. da ngay dem ba motivation première ba da lay commencé manqué. Mhm. mi ngi mel ne rek tey jii fu ñu la affecté post bu ñu la affecté. Mhm. nga toog fa di liggéey. boo fa defee benn dix ans wala douze ans tu tendance à penser fii sa bërëb la. donc da dem ba finalement dootoo am motivation bi nga amoon au départ mais il faut benn équipe bu jeune. bu dynamique ànd ak seen ay yaay ak seen ay paa liggéey nag parce que euh, lii nga xamante ne mooy élection locale. Mm-hmm. gox goxaat yi. Mm-hmm. communes yi la con euh, concerné. Mm-hmm. mais commune tamit boo xoolee. Euh, tey jii surtout fi ñu toll ni nga xam ne ak droit de la décentralisation daf ko gën a yaatal. ñu daan wax ay ay ay ay sept domaines de compétence neuf domaines de compétence mu yóbbu ko ay. Hmm. une dizaine wala voire vingtaine maintenant. de quatorze domaines de compétence moom lañ jox les localités. waaw nga xam ne tey tey am nga possibilité. Hmm. nouer partenariat mais am nga possibilité aussi tamit def ouverture par rapport ak à l'interne sa population. Hmm. ba nga xamante ne ñi nga xam ne ñoo fa nekk. seen xel màcc sur les domaines d'intervention dinañ mën am euh, euh, cawarte jege cette équipe indi ay proposition ensuite mu am une équipe cadre municipale boo xam ne day nekk sur place mën a de réfléchir def étude yu war et bu fekkee dafa war pour ñu engagé wu ci partenariat mm-hmm. ñu engagé wu bañ ko bloqué et tout. Mm-hmm. donc yooyu noonu dafa dafay bokk ci liy dimbali. Mm-hmm. vraiment ki nga xamante ne ñi xam ne mooy équipe municipale pour ñu am ay ay ay réalisation leneen li si nekk nag mooy il faut travailler le budget. aujourd'hui au parcelle ñu ngi wax deux milliards quatre cent millions de budget. mais boo xoolee dans le recouvrement. bu fekkee ne am nga tuuti xam-xam ci côté boobu. nga xool dans recouvrement. mais li ñuy recouvrer eggul un mil deux cent millions. xaalisu askan wi askan wi jotul ko. maanaam xaalisu askan wi li ñu mu ngi mel na ñu tegal la boolu ceeb. ñu ne la bool bi boo lekkee ba suur. da ngay am deux milliards quatre cent millions. mais yow nga toog lekk ba suur am un milliard deux cent. cela euh, pour samp seen nënd ci élection locale di ñëw pour dindi moom la ñuy def nii boo gisee depuis un an deux ans ñuy préparé wu nekk suñu siège fii di liggéey. di waxtaan parce que politique loolu da ngay waxtaan ak sa frère. Mhm. waxtaan ak sa sœur. waxtaan ak sa yaay sa pap ñoom tamit ñu waxtaan ak seen ay mbokk ba tey ji boo xoolee euh, Parcelles Assainies moo muy vingt unités dans toutes les unités nous avons nos cellules ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ñu ngi waxtaan parce que ñu sunu stratégie c'est pas de faire def marketing wala def du bruit mais nous voulons mailler vraiment en silence ba Parcelles Assainies yëpp xam ne ñun lii mooy sunu vision ñun lii mooy projet bi mhm. gars yi adhéré mais képp ki liggéey si politique gars yi di leen ko xam yow ci ban wàll ngay liggéey ëllëg suñ la wooyee téye pour nga dem coaliser ak ñu nekk si pouvoir bi wala ñu nekk si ku gi. waaw en réalité y a les coalitions actuellement yaa ngi gis ni moom la doon opposant mais maa ngi ci biir bu baax a baax a baax mais pourquoi gisuñ la fa dem maa ngi ci biir bu baax mais pourquoi gisuñ xam nga boo xoolee nga signé bi wala sa parti moo amul doole wala sa mouvement moo amul doole non non non c'est pas ça c'est qu'en réalité Euh, boo xoolee cette coalition là juste euh, bi ñu ko agité ak léegi ay une semaine lay def. Mhm. le temps que ñuy agité coalition bi ñuy def charte bi vous avez vu. Bougane est-ce que yow concerté euh, gars yi neen seet la. bu baax a baax moi je connais beaucoup de monde ci biir coalition bi je dans cette coalition. j'ai eu j'ai eu des séances de travail maa ngi ci biir coalition bu boobu ñu tuddee yeewi askan wi. léegi su la pouvoir. j'ai eu des séances de travail le pouvoir à côté la wooyee. non aujourd'hui le pouvoir. Mhm. au ne wax naa la ko léegi. Mhm. je n'ai que de vraiment de frères la bas ñoo xamante ne liggéey nañ wax dëgg yàlla am nañ. mais frères yooyu suñ la wooyee. non mais su xam nga ni duñ la woo rek nga daw nii tey jii c'est pas la coalition am la moo ñu woo. Mhm. affaire bi vision la projet la. tey jii projet bi nga xam ne ñun si lañuy liggéey wala ci la ñuy ànd képp koo xam ne dafa am vision boobu am projet boobu pour ànd ak ñun dañuy ànd ak moom. mais vision bi ak programme bi lan mais projet bi ak programme maa la koy wax léegi. nous avons trois axes yoo xamante ne. Mhm. gëm nañ ne loolu dafa war a bu ñu jógee ci élection locale yi dañ ko war a attaquer d'office. comme mooy l'axe bi jëm ci environnement. Mhm. cadre de vie amul parcelle da ngay génn xool ba sa bët fu mu yam doo gis mhm. garab. doo gis espace amul espace vert amul jardin. assainissement bi ci environnement la bokk gis nga ndox yaa ngi tëmb. ça c' est le premier mooy suñu premier axe. de zone. moi je le président de la zone 8B des Parcelles Assainies. Mhm. j'ai 22 ASC yoo xam mhm. dans le dans le social dans la santé dans le développement mais dans le sport. Mhm. lii ma ñuy def nii c' est un constat. Mm -hmm. que ne les choses ne vont pas il faut qu'on nous aussi nous mettons la ko ñu liggéey ko. wala ñu ànd ay nit liggéey ko mais aujourd'hui fi ñu taxaw nii nous portons vraiment le projet du mouvement Air Pur dañuy dem vraiment ci élections locale yi. Mm-hmm. et lu ñu yàlla may ñu jël. nu nous travaillons à gagner ces élections mais looy wax politiciens yoo xamante ni léegi askan wi dañoo tàyyi ci seen wax. soo waxee ñu ne ñoom ñëpp ñoo yem de 1960 ak léegi. gars yi ñoo ngi politique mais dañuy nax askan wi. dem neen sax ba ne les politiques ñoom ñoo retardé Sénégal retardé Afrique. mais parfaitement léegi ngay wax askan wi ak politique yi nga xamante ni carrément ñooy changé ndax doo bokk si ñoom yow. non man wax naa léegi je suis pas politique man je euh, boo gisee le le truc Sonko la mhm. mu am euh, benn buzz bi. Mhm. c'est parce que c'est presque comme les mouvements citoyens la ni ñuy doxee. Mhm. aujourd'hui Euh, il faut voir que ne autant bi ñuy wax PDS wax PS genre doon wax école du parti mu doon am benn formation boo doon def à la base par rapport ak les domaines de compétence fii par rapport ak euh, liggéey bi nga war a liggéeyal sa askan et tout amatul léegi. Mm. boo xoolee cette citoyenneté là mi ngi nekk ci mouvement associatif yi. Mm-hmm. mi ngi nekk ci mouvement citoyen yi. Mm-hmm. moo waral sa buzz bi mouvement citoyen yi am. Mm-hmm. aujourd'hui les partis ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi agité wu. tey jii boo demee ci coalition bi ñuy wax ni de l'opposition vraiment da ngay gis que ne c'est les partis dañuy jàpp ne ñoom ñoo war a ñoo war a diriger affaire bi ñoo war a jiite affaire bi mais la réalité mooy boo xoolee élection locale yi ñu jëm nii c'est c'est la base qui valide les les les les les les candidatures askan wi coalition bu nekk mën nga ñëw proposer askan wi candidat mhm. mais askan bi ñoom ñooy tànn ku leen mooy li wax nii mais askan bi nga xamante ni mooy tànn mais jéppi boobu noonu tey ñu jëtti pour politiser mbaa yow duñ la si gis. non non non dama ne c'est askan bi nga wax ni ñoom ñooy tànn. Mm-hmm. Euh, c'est pas sax ñi nekk ci biir contingent. parti politique yi wala mouvement yi askan boobu comme ni nga ko xamee ñu ngi seen biir salon yi ñu ngi seen bureau yi di liggéey euh, nekkuñu sax ci parti politique yi c'est eux qui choisissent à la base te ñoom ñoo am déception sur les les les les les politiciens mais quand eux ils disent les politiciens ñi ñuy ñi wax ci seen politiciens yi mooy les ceux qui animent les les partis politiques ceux qui euh, qui étaient dans le système comme ni ko sawaay di waxee nga xamante ils étaient là sous Abdou Diouf ils étaient là sous Wade te ba léegi ñuy góorlu di jéem a nax askan bi mhm. pour occuper des postes stratégiques mhm. pour am eh, parce que dund bi ñuy dund mhm. ak euh, seen façon de de dund il faut que ñu nekk ci dans dans le système pour mën di di di di gagner donc ñooñu politiciens yooyu la gars di wax na nañ vraiment dañoo am déception si ñoom te effectivement dañoo am déception si ñoom parce que chaque fois des gens chaque fois des gens nous ont vendu des rêves mais à au finish da ngay gis que ne euh, le désarroi est toujours là. Mhm. nit ñi ñu ngi sonn toujours nit ñi ñu ngi xiif toujours. Mhm. nit ñi ñu ngi bëgg añ duñu añ xool actuellement. ñoo ngi bëgg a duñ faju ñoo ngi bëgg a dam duñ am yoon. voilà dangay ngay gis actuellement ni fi mu toll nii. Mhm. xool daara yi ni ñu flambé. xoolal daara yi ni ñu flambé loolu moo tax sax boo xoolee boo ñëwee nekk policier hardcore di ko indi hardcore bi ñu comme ay sonkoog yooyu. boo di la topp. parce la réalité mooy que ne. il faut yow yaa ngi wax di tànn Sonko comme exemple exemple. Mm-hmm. Sonko si moom ngay war a dem pour jàppale ko wala lan moo xew. wala c'est Sonko qui a financé votre parti <laughs> politique. non non non non man je n'ai vraiment pas de leader bu nga xam moo nekk sama ginnaaw. Mm-hmm. di financer mouvement Air Pur bi depuis deux ans. Mm-hmm. Euh, je connais très bien Sonko je connais très bien le ministre Amadou Ba. comme je connais le maire Moussa Sy je les connais tous. Mhm. mais il personne derrière bi may finance damay damay def analyse rek xam nga boo def analyse cela veut pas dire que de Sonko nga faral. Mhm. mais situation mais duñ de indil te plateau bu mel nii. Hmm. jox la nga doon suñu invité après ngay defal yeneen leader seen pub wala seen promotion. non mais attends man defuma promotion kenn man nee la. mais tu dis que pourquoi le buzz moom mu am ko yow kun amoo buzz. non xam nga quand on parle de buzz c'est par rapport à la situation précédente. Mhm. ni booy di waxee sonko sonko bi nii mu am ay clashanteeg noonu. Mhm. mais cela veut pas dire que je suis pastefien de. Mhm. je suis pas pastefien. nekkuma pastef. man nekkuma Benno nekkuma Pastef les gens qui me connaissent ici xam ne. j'ai été apolitique. jusqu'à benn moment bu très récent. et li ko indi mooy que ne dama jàpp ne on doit se lever. combattre pour que cette situation là change. Mhm. loolu rek. mais si jug changé boobu noonu wax nga léegi affaire sociale yan acte yoo xamante ni ce des actes sociaux moom nga jël teg ko ci li nga xamante ni moom mooy parcelle ci mouvement nawetaan yoo nekkoon. non no non xam nga ñun depuis vraiment. Mhm. Euh, su ma waxee euh, depuis quatre vingt quinze. Mhm. mille neuf cent quatre quinze ba léegi nii. ñun nous sommes dans la sociale. Parcelles Assainies. Euh, Wahab Abdoul Wahab wala Wahab Sène wala président Wahab. Mhm. wala réel président mooy leitmotiv bi ñun dañuy dañuy jàppale nit ñi vraiment dans tous les domaines bu fekkee ne euh, pandémie bi ñuy dund rek mhm. nous avons depuis dès le début mhm. le 3 mars 2019 la pandémie dugg Sénégal 15 jours après nous avons sillonné def caravane boo xam ne on a mis beaucoup de masques boobu temps masque bëriwul ah. on a bu am beaucoup de masques des gels et autres mais aussi on a moment boobu ñu ngi doon def vraiment di di di di waxtaan pour que gars yi généraliser mhm. le port du masque après mhm. ñu ñu maye ay masques et tout boobu ba léegi on a travaillé comme ñu ngi ko waxee au niveau des ASC pour que toutes les ASC seen biir gox yi ñu ñu ñu ñu liggéey ci euh, waxtaan ak ñi sur les gestes barrières mhm. si maye masque si aussi tamit observer vraiment ñi nga xam ne ñooy nekk ci gang yi approché di wax ci feebar bi fu mu mën duggee nit ki et depuis deux ans loolu la ñuy def. Mm-hmm. donc depuis deux ans au delà de de de de des autres aspects ñu ngi ci liggéey ci pandémie bi coronavirus bi mais en dehors de ça. dañuy def fi ay don au talibé. chaque année parce bi contexte la te contexte bi yàlla na fi jugee. Mm-hmm. te euh, nit da nga war a doon nit social saa su nekk. moom laa lay wax loolu c'est 2019 à aujourd'hui mais avant 2019 mm-hmm. au niveau de la zone 8B. Mm-hmm. nous avons vraiment coordonné des activités yoo xam day dem ci ci talibé yi ay don au talibé. Euh, dañuy jël ay camion sol ko ay ndugg te yooyu yëpp c'est des c'est des gens yu nekk parcelle yoo xam ne ñu ak ak le mouvement associatif ñooy liggéey ba am loolu jàppale taalibe yi dem ci daara yi jàppale leen ci taw bi nii da ngay dem chaque fois ci daara yi di xool parce que ñoom en général kër la ñuy jël nii rek def ci euh, euh, bâche boo xam ay éponge lay nekk wala ay basang xam nga bu fekkee tawet du période nawet garaawul quoi mën nañ ci fanaan mais bu nawet bi ñëwee da gis ndox mi bu ci sottee ko basang day wàcc donc si dem ci ci liggéeyaat ak yooyu loolu c'est dans l'aspect euh, talibé ak yooyu noonu mais même dans la euh, les euh, par rapport aux personnes du troisième âge parce que xam nañ na ñun on a animé ici des séminaires i les docteurs Mbaye Paye cardiologue et autres ñuy waxtaan ak les personnes du troisième âge si seen les les les comportements boo xasee am benn âge bi les gestes yi nga war a def Nous avons animé ici des formations sur euh, euh, les, les, réflexes du, sauve, du secouriste. On a, on beaucoup travaillé dans la culture aussi. On a des journées yoo xamante ne du matin au soir de de 9h du matin jusqu'à 22 dañuy génne le le meilleur artiste bu nekk Parcelles Assainies dañuy génne le meilleur euh, dessinateur artistique parce que am na ñuy def dessin industriel am na def dessin artistique dañuy def ay dañuy génne la meilleure troupe théâtrale ak yeneen domaine ah culture. ça c'est soo koy def kun tey sa côté négociation yi fan par rapport ak élection yi di ñëw di. élection locale si passée non parfaitement les gens viennent ici gis nga fii mhm. chaque jour. Mhm. Euh, les leaders viennent. Mhm. ci côté yëpp nag. opposition comme pouvoir. parce que nous, nous sommes un mouvement très ouvert. Mm -hmm. Ce que nous voulons, c'est aller aux élections. En tout cas, porter le, euh, le, le fait que le mouvement euh, Air euh, Pur importer son choix si su ñun li ñu bëggoon mooy jàkkaarloog Parcelles Assainies wax leen ne lii mooy sunu vision lii mooy suñu projet xool ndax Parcelles Assainies dinañ ànd ak ñun ci loolu bu ñu àndeek ak ñun ci loolu. Mhm. Euh, tant mieux ñu àndandoo ñun ñëpp après su dee yàlla def nañu gaja dem fii ci mairie bi liggéeyal Parcelles Assainies ci loolu lañ taxaw fi mu toll. négociation yi moo ngi dox tey ban kàddu ngay wax askan bi nga xamante ni ak ñi nga xamante ni ñoo ànd dénk la li nga xamante ni moom mooy seen coordination pour nga jiite ko. surtout la jeunesse nu sommes à un moment bu doy bu crucial quoi vraiment ci avenir commune Parcelles Assainies il faut pas que ñuy topp li nga xamante ne mooy am muy euh, xajo xajoo yi seenoo yi xasante yeeg yooyu gis nga jeune bu tolloo ci moment bi dafay xool fi mu jógee ba fii ndax lépp tout va bien su fekkee tout va bien alhamdulilah ñi ko liggéey ñu jàppale leen suñu xoolee nag ne boobu ba léegi vraiment le bilan euh, baaxul dañoo xam war a xam ne c'est le moment de tout refaire ñu bare vraiment dugg ci ay ay xoloog yooyu vraiment tendre la mais à tout le monde que même les responsables ñi nga xam ne ñoo yor ay mouvement politique fii au même titre que nous ñu ñëw toog autour d'une table ñu waxtaan ñu xool les meilleurs profil ñu jël ko jiital leen ñu xool la meilleure équipe municipale parce que c'est une équipe municipale qui va travailler ce n'est pas une personne mais c'est voilà, une équipe voilà qui va travailler dans l'environnement mm. qui va tra beaucoup travailler dans, dans la santé dans l'éducation, mhm. mais qui va aussi dans, beaucoup travailler au niveau des finances pour vraiment am un budget bu bu mag bu bu cinq milliards maa doon expliquer sànq. Mhm. ci da nga maa dag mhm. par rapport au budget. on a deux milliards quatre cent de budget. mais on recouvre un deux cent. si on paie annuellement sept cent millions. qu'est-ce qui ça va nous rester cent millions. bu ñu génnee les dépenses de prestige du maire rek. nga xam ne mooy seen ay carburant ak yooyu. Mm-hmm. si ce reste 100 millions qu'est-ce que tu peux faire concrètement ci biir commune bi ak 100 millions. mënoo donc il faut que ñu liggéey le budget mu def ba 5 milliards 6 milliards pourquoi pas et les niches sont là fii. du dëkk. Mm-hmm. boo pare nag. les priorités par rapport ak li ñuy war a réaliser nga dépense effectivement. efficacement nga xool. aussi c' est enregistré te lu mënti xew ëllëg di leen waar ndax lépp loo fi wax dina am wala du am. dañ koy vaaraat tey ñoo ngi si suñ jeexatal émission suñ la waxoon ban kàddu ngay tëjee ak ban message ngay lancé ñi nga xamante ni tamit ñoo dëkk parcelle. waaw de demande côté coalition yi nga xamante ni mooy fóor a décliné wu. waaw non coalition yi moom maa koy gis ko quoi mais man en réalité vraiment je suis dans la coalition Yewwi. Mhm. mais la réalité mooy que ne man li ma gëm. Mhm. mooy que c' est la base. Mhm. mooy valider. mooy fal. donc na gars yi gën a proche population bi. na gars yi moytu ces mouvements à coquille vide et ces leaders qui n'ont personne derrière et qui se cachent derrière les coalitions. il faut travailler à la base am mbooloo. parce que ce sont les les cartes ñooy fal. ñun loolu lañ gëm ici à Air Pur. Mhm. et nous travaillons pour avoir cette base là. Mhm. merci beaucoup mon frère. jërëjëf euh, suñ mbokku téléspectateurs yi. Mhm. ñoo ngi leen di jox yeneen numéro ci biir Equivox TV di gërëm ñu si àndaloon moo du xule suñ jarbaar suñ technicien. ànd si ak Habib Biba Seck ak suñu directeur général tey mu def déplacement bi jox ñu opportunité bi hélas ñëw fekkee ko ak suñu rakk Habib ñoo ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax di sant suñ jeune frère bi nga xamante ni moo dëkk Nioro Djibril Tamboura yombalal ñu émission bi te xam ne ne lépp loo xamante ni tamit si côté collaboration la Equivox TV dina ko ànd ak leader yëpp pour ñëw si askan wi génneel leen lu xew jox leen ko non Djibril Tamboura moom c'est c'est le poumon de air pur waaw mm-hmm. ñoom Djibi euh, Ibrahima ñoom Toutou Khalil Gueye ah, ñoom vraiment madame Ba mm-hmm. ñoom Cheikh euh, Sidi Ba ah, c'est une équipe ah ñoom Mahdo vraiment nous avons benn nomenclature bu doy waar par rapport ak le comité électoral mm-hmm. nous irons ak 435 personnes ci ci élection yi mooy nekk comité électoral air pur merci beaucoup en tout cas lii lañ leen indi te saa su nekk dee ñu xaar si yeneen numéro yoo xamante ni carrément ni lay demee wasalaamaaleykum wa rahmatullah et à très bientôt nos téléspectateurs merci beaucoup